xalifa mbay gi day fa tabarakallahu yàlla subhanahu wa dogal na tey ji Tiwaawan moo xewle bisu gàmm bi gàmm gi nga xam ni Seydi Hadji Malick moo ko yaatal fa tabarakallahu ci Sénégal eh, yàlla xéewale nu ko nag nun ñi nga xam ne ñoo dëkk Sénégal tabaarakallaahu lépp nag di njariñ ndaxte gane yonent bi salaa sallam la képp koo xam ne màggal nga ci la nga ca màggal na di nga ko ca am incha loo ca yéene itam di nga ko ca am tabaarakallaahu lii yal na ko yàlla saxal yal na ko yàlla barkeel yal na ko yàlla yàggal yéen itam nii ngeen def ànd ak seen rajo eh, dugg ci nit ñi di leen laaj seen xalaat ci gàmb gi lii lu rafet la lépp la loo xam ni développement la taqaddum la maanaam yokkute la avancement la ci réew mi ndaxte lépp luñ ci wax loola dina tasaaroo te bu tasaaroo itam ku ko dégg duñ ca jariñu kon nag fa tabaarakallaahu gàmm gi daal neex na e tibaaban fees na nit ñi ñëw nañu yëg nañu yeneen bi bëgg nañu yeneen bi sallallaahu alayhi wa sallam gàmm gi neex rek wallaay gàmm gi neex na torop gàmm gi dalañ ci yàgg ñëw yaa barki salaatu faati yàlla ñu yàgg ñëw ci gàmm gi yàlla may nu gudd fan ak wér ak wérle yaa barki laa ilaha illallah gàmm bi da dugg nañ si si bisimilah yàlla nañ si yàlla génne nag alhamdulilah ndaane moom gàmm bi moom chaque jour nii lay demee neex rek nañu yàlla nañu ñëw fi ak jàmm yàlla ñu yàlla ñu bisi ñooñu ak jàmm ndax bi moom fu nekk ni jaar na yoon ba pare kontaan nañ xiifuñu maruñ te tamit képp luñ fi ñaan yàlla na ko yàlla nangu waaw loolu daal la ñu ñaan yéen na yàlla yokk seen liggéey. waaw ñu ne man kontaan rek ci gàmb gi waaw lépp doy na kontaan nañ trop yàlla nañ ko teewee déwéni déwén dara manqué wul kontaan nañu waaw dugg nañ fi ñu war a dugg fépp dara xatu fi lépp a féex lépp lépp a mat kontaan nañ trop ci gàmb gi dara moom manqué wu fi wax dëgg yàlla kontaan nañ trop waaw ñu koy teewaat déwéni déwén ñun ñëpp ci suñu borom bi ñoo ngi ñaanal ñëpp. waaw ku teewe ku teewul ñëpp ñoo ngi leen di ñaanal ci kër bat sëñ Babacar Si. gàmmu gi moom. waaw ba ma fàttali ko ci léegi. sama pap dañoo jàkkaarloo nag maam Abdou man maam Abdou mooma may werd. mooma may werd boobu ba tey. maa ngi koy dog li ma ci mën a leer mi yal na yàlla dolli wërsëg yal na yàlla yaatal kër gi yal na leen yàlla sàmm yéen ñi nekk ci kër gi ci gannaaw kër gi yal na yal na yàlla mooy weeru fekke ki déwén ak ci gannaawam jara ngeen jëf lii moom am na ba pare bur bur bopp moo koy moo koy sef Tiwaawoon yëkkatiku na ci kow ci kaw ci kaw jërëjëf. gàmmu ji xanaa kontaan dong ndax Tiwaawoon moom su xewle moom ñëppay kontaan ñëppay ñëw dara manqué wu fi ñi fi teewee déwén yal nañ ko ñi fi teewee ko teewee déwén teewee ko at yu bari bari képp ku am soxla nga egg si Tiwaawoon fii yal na yàlla nangu sa aajus yëpp. guddi yonent bi jar na lu ne. ñoo jógee ba Dakar ñëw pour màggal yonent bi sallallahu alayhi wa parce que yàllaa ko njëkk a màggal ci alxuraan yàllaa ni koy wax innaka la'alaa xuluqin kon lépp li waay def rek ni yoon la yàlla neen na allah naka yàlla wal malaayikata ak malaayika yi salluun dañuy julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon yéen ñu julli ñi yaay wala si naam yéen julli ñi sallu julli leen ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loo ci def rek yàlla la koy fey di sant bu baax kontaan nañ trop dañu yàlla nangul gàmm gi ñu fekkee ko déwén yu bari te déwén dàqal ñu ren waaw nataal yi moom ni ngeen ko gisee nii rek la fi tegoo góor gaa ngi nii ëpp na loolu 12500 lañ koy weccee ko waaye ëpp na loolu góor gi loo def si moom xeeb nga loo def si moom xeeb ndax sëñ Babacar fi mu jaar ba egsi fi mu egsi tey ah yàlla yàlla ñu ko yàlla fayal waaw amuñu lu dul mbégte ci moom li ñu defal rëy torop gis nga lii lépp boo ko gisee moom moo ko waral ak baayam Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala waaw sant yàlla rek gàmmu si bi ñu sant yàlla fekk ko ay déwéni déwén ba fekk ko ren ñu ciy sant yàlla rek di sant Seydina Mohamed mi nga xam ne moo waral gàmmu gi tey lépp daal sant daal wax dëgg yàlla gàmm gi neex na vraiment bërki démb tey nit ñi bari na lépp a ngi ni gaañ lekk gi dara jeexu fi daal vraiment ñu ngi sant yàlla bu baax di kontaan ci yéen tamit yéen yi nga xam ne yéen a ngi def seen liggéey yàlla may leen kàttan gu ngeen koy defee chaque jour di kontaan ci yéen mënu maa wax daal bég daal sant daal sant Seydina Mohamed rek laay wax bis bu màgg bi tey di du bési Rasulullah Seydina Muhammad sallallahu alayhi ngën gi mbindeef moo ñu fi dajale tey di sant nag El Hadj Malick di di sant Serigne Babacar di sant Dabakh Malick mi nga xam ne tey gàmm gi lépp ñoom la ñoo ngi sant yàlla di ñaan yàlla bisu tey bi yàlla bu mu nekk suñu bisu te lu mujjeelu gàmm di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekk ndegeen a déwén yéen it seen liggéey bi ngeen di li yàlla na yàlla leen def ngeen nekk première chaîne nationale du Sénégal. kontaan ci ñoom rek seen liggéey rafet na vraiment barke Serigne Fallou Mbacke seen liggéey dafa rafet ñu ngi leen di ñaanal yàlla daal yàlla may leen wér goo xam ne chaque jour ngeen di liggéey lu rafet nit ñi kontaan ci yéen xanaa neex. Gamou 2016 Sénégal 7 point com. Sénégal 7 point com. xalifa mbay dunu mer foonu gis nu ngiree di waxtaan sunu sëriñ